إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد سورة الفجر الله أكبر سورة الفجر الله أكبر سورة الفجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد سورة الفجر لآية لآية ستة بالآية ثمانية آية سيس بآية ست وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المنزل عليه قوله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة wa kaanu bi ayatina yajhaduun suratu fussilat aya xamsata achar ayyuha almushahiduuna alkiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi soppi yi xarit yi dellu siwaat nañu maag yéen ci jotaay bii jaar-jaar yonent bi muy xewee fii ci Tawhid TV ci chaîne de l'espoir seenu yaakaar bi bokk jullit ne yaakaaru askan bi fa leen tegle woon seen baaraam tegg leen ko ñu ànd te mooy li yàlla waxal boppam alam tara ndax gisoo yow yonente bi ndax gisoo yow imam bi ndax gisoo yow jullit bi ndax yi gisoo yow boroom xam-xam kayfa faala rabbuka bi aad na yàlla jëflanteeg waa aad ñooñu ñooy ñan irama zaati l imaad ñoo ñi nga xam ne boroomi tabax yu mag lañ woon ay keno ay pied yu mag lañ doon samp ci liñ doon def ñooñu nga xam ne allati lam yuxlaq misluha fi l bilad ñooñu nga xam ne ni ñu toll woon ci seen bindu yaram ñu mel noonu musuñu woon a am ci àdduna bi loolu ñu réaliser woon ci àdduna bi ci ay tabax ci ay ay ay ci ay mbir loolu amul woon ci benn réew ci àdduna bi kon bu ñëwee tey am fu ñu yegg ci am-am am fu ñu yegg ci man-man am fu ñu yegg ci kattan waruta tax ñu bew ndax ñeelin njiitu woon yàlla nee na mosa mos mel noonu musta am te yàlla mi wax loolu xamoon na ñooña xamoon na la nar a am xamoon la nar xewi ba ba àdduna di tukki soppe yi xarit yi suratul fajri aya six ba aya huit mbokk yi ñu ñaanal suñu sàng di suñu soppi di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla ak jàmm ci moom def ko ci waa këram def ko ci àndandooram ya def ko ci képp ku gëm yàlla ak fu mu mën a ne yonente bu tedd boobu la yàlla wàccee ci moom wax ji yàlla di wax ne fa amma aadun dafa mel ni yàlla daf ñoo bëgg a xamal dañoo bëgg a xam aad mu bëgg ñoo wax seen lenn ci ay jikko seen jikko yi mu ne leen kaay leen déglu leen ma ndax képp kuy wax ku ne bëgg nga ku la déglu kon fa amma aadun yàlla amul jot rek di jékki-jékki leen naan amma aad am na lu xew kon ñun ñi xamul dara ci waa aad ñun la bëgg a xamal ñooñu ñooy ñan wane ne ñooñu duñu ay royukaay ndax dañoo bewoon dañoo amoon arrogance dañu doon rëy rëylu seen jikko dafa ñaaw dañ doon yàq ci kaw suuf dañ doon noonoo dañ doon tooñ di jalgati di yàq suuf ànd ak li leen yàlla defal ci ay teraanga nga xam ne dañoo waroon a sant yàlla jaar ci fi leen yàlla bëgg waaye déedéet wattaqu lladi amadakum bàyyi leen moytu leen a def luy merloo yàlla mi nga xam ne moo leen defal situation bi ngeen ne waaye ku bàyyi xel yàlla ñoom nag bàyyiwuñu xel yàlla moo tax ñu di leen fàttali loolu pour ñëw amma aadun daal nitu aadiya ah ñu ne waaw lu xew fastakbaru fi l ñoom day dañ doon rëy rëy lu ci kaw suuf beew arrogance waru tooñ jalgati yàq ci kaw suuf bi xayri xaq ci lu dul dëgg wa qaalu man ashaddu minna quwwa ñu booleeg ci seen langage seen arrogance ba yegg ca ñu ne ah ana kan mooy ku ñu ëpp doole ñu feelu leen jaar ci suuf ne leen walam yaraw ndax xoolu leen gisu leen yëgu leen anna allaha alladi xalaqahum yàlla mi nga xam ne moo leen sàkk moo leen moom huwa ashaddu minhum quwwa moo leen ëpp doole moo leen ëpp kattan kon koo ëpp doole waroo ko ko won ndax am na ku la ëpp doole te wonu la ko koo ëppale waloo ko won li nga ko ëppale ndax am na ku la ëppale fuuf te wonu la lool kon koo ëppale da nga ko war a yërëm da ko war a jàpp da ko war a jàppale koo ëppale ci wàllu am-am da ko war a jàppale da nga ko war a dimbale waaye waroo ko koo won waroo bew ci kawam waroo jalgati ci kawam waroo koo tooñ kon wa ashaddu minhum quwwa moo leen ëpp kattan wa kaanu bi ayatina yajhaduun te it waa aad ñooñu suñu alquran suñu kaawteef yi ñu leen defaraloon dañ ko weddi woon yajhaduuna bi ayatina yadhaduun bi ayatina allahu akbar mbokk yi suratu fussilat aaya fukk ak juróom ayuha almuslimun yuzakiruhum allahu bi udwanihim wa tughyanihim wa zulmihim lissigar wa lidduafa allahu akbar yàllaa ngi mbokk yi soppe yi xarit yi yàllaa ngi leen di fàttali di leen wax ci noonoo gi doon noonoo jaamu yàlla yi bew gi ñu bewoon ci àdduna bi kon ku yàlla jox pouvoir pouvoiru alal pouvoiru nguur pouvoiru man-man pouvoiru lu mën a doon waruta doon jumtukaay booy nootee ñenn ci say ay anniversaire da leen war a jàppale da leen war a àndandoog ñoom nawloo ak ñoom ngeen bokk ànd tabax réew mi ndax kenn ku ne am na loo man kenn ku ne am na lu la yàlla jagleel waaye ku ànd ak man loo mën a def baax na keneen ku far feneen loo mën a def ma teg ci sama baaraam wala ma teg sama tànk wala ma écraser la jëlee la fi ah, ah du noonu ñii noonu la doon dundee te gis nga fu ñu mujj dañoo mujjee alku te yeggaguñu sax damaa maa ngi anticiper sa ndax yeggaguñ waaye dañoo tollu rek ci leeral ñoo toll ci leeral kon pouvoir wu am-am pouvoir u alal pouvoir u nguur. du a doon jumtukaay bu nit di jëfandikoo ci digganteem ak ki nga xam ne àndut ak moom walla mu nekk nawleem te bokk réew mi dañoo war a jël loolu yépp exploité ko ci lépp luy njëriñu askan bi lépp luy njëriñu askan bi ñu fexe ba loolu wàññeeku ndax booy dund benn tandal nelaw tey askan bi la ñoo lay fayal ñoo lay dundal ñoo lay defal lépp kon ci seen service nga waroon na da nga waroon a nekk serviteur ci askan bi kuy sonn pour askan bi kuy sonn pour jëriñ leen kuy sonn pour lépp luy seen soxla nga taxaw ci loola looloo war a doon kon waroo jël sa kattan wala sa doole di ko jëfandikoo ci ñi àndut ak yow ñi ànd yow même bu ñu jalgatee nga teg ci sa tànk waroon nga ko mën a def sa ñu xam ko waaye waroo ci yegg di wax ne man maa ko def déedéet loolu ëpp na loolu mbewte la gu ëpp loolu ëpp na waaye diw ak diw ak diw def nañ fi loo xam ne maa ci seg sama tànk oh loolu ëpp jéggi na dayoo keneen ku dul moom boo xalaatee sax ñu jéppale dugal ci biir kaso bi am na ay nit ñu nekk ci biir kaso bi foo xam ne buñ doon jeex la ñu def ñépp ñi nga xam ne am nañu xel te xam àdduna ni muy doxee dañu ñaan ñii defuñu dara li ñu leen war a mën a téye waaye teewul gis na ko te rek ñu forcé dugal leen parce que politique teewul rek parce que daf may gêner parce que daf may déranger ay ah, yaay kan ba duñ la déranger te yow ngay dérangeate mbokk yi kon lii mooy li xew lii mooy li am yuzakiruhum allahu bi udwanihim wa tughyanihim wa zulmihim li duafa allahu akbar yàlla di leen fàttali fàttali ñan waa aad ni waa aad mais nii mooy ñi yore adduna bi ni waa adduna ñun ñun tey kon loo yor te askan bi jox la ko war nga xam ne joxoo ko sa bopp askan bee la ko jox askan bi itam waroo cee jàpp nag ñi ànd ak yow kese ñeneen ñi nga jàppee leen ay noon ba li réew mi li fi ne lépp ñëpp bokk ko nga jagleel ko ñi nga àndal kese ñi ci des nga bàyyi leen te muy réew mi réew mi la ñu wax que réew mi kon ñi bokk ci réew bi ñëpp li fi ne ñëpp ñoo koy jëriñu ñoo ko war a jëriñu ñëpp ñoo ci war a gis seen bopp waaye du caageen benn groupe rek benn régime rek ñennet rek ah ah du noonu bu ñu follee rek daal di torox loolu mosta jaar yoon kon yàlla di leen fàttali seen noonoo giñ doon noonoo askan bi mbew teggi bu rëy giñ doon bew waaye tooñ yi ngi xam ne moom lañ doon tooñ néew ji doole ji ba alquran di tudd lool wa ida batashtum batashtum jabbarin allahu akbar kon mbooleem qualification yu bon yëpp daanaka tase na ci nitu aadiya aad mbokk julit ñi qabilatu aad suratu shuara aya 30 aya 130 وإذا بطشتم بطشتم جبارين الله أكبر bu ñuy noot nootu ku mbër gu mag nootin woowu lay jëfandikoo al batch mooy ànd ak doole ànd kattan gu rëy yàlla ne ñoom bu ñu mosaan a jàpp dañuy lay jàpp noot la ba foofu ngay jaar daal di far dootoo dundati وإذا بطشتم بطشتم جبارين waaw nitu mboraakoon nit kuy réeréelu ci kaw suuf suratu Shuara aya 130 wa qad dallu dalalan kabira fi diinihim fa hum awalu man ittaxada al asnaam baada qawmi nuuh sanauha wa abaduha min duni illahi taala yooyu melokaan lañu amoon réer nañu sànku nañu tànkute bu rëy tànkute bu bir ci seen diine ak seen doxalinu àdduna ñooy ñi jëkk jaamu xërëm gannaaw bi nitu yonent yàlla noox ya demee dispare ñoo ko liggéey ñoo ko defar wëlbatikuwaat di jaamu xërëm yooyu bàyyi fi yàlla wa dayya'u haqqa Allahi subhanahu wa ta'ala wa ankaru yawm al-qiyama wal ba'th wan nushur ñu bañ yàlla sànq ak yàlla foñ yàlla bañ ko ba bugg ñu dégg sax kuy wax yàlla mbiru yàlla weddi yawm al-qiyama weddi dekki weddi itam luy pàng yegg sax ci wax lii in hiya illa xayatuna dunya namuutu wa naxya wa ma naxnu bi mabuuthin suratul muminuun aya 37 in hiya déet dundu adduna bii ñuy dundu illa xayatuna dunya dund bi daal amul leneen lii la daal mooy dundu adduna namuutu wa naxya dañuy dee di dund wa ma naxnu bi mabuuthin nun du ay nit ñoo xam dañuy dee ñu naan dañuy dekki ëllëg kon ankaru yowm alqiyam ankaru albaas weddi nañu yowmal qiyaam weddi nañu dekki dina am ndax gëmuñu ko moo tax in hiya illa xayatuna dunya de dund bii lu dul dund suñu dund adduna rek xayatuna addunya suñu dundu adduna jeex na amatul leneen namuutu wa naxiya dañuy dee waaye dañuy dund dekki moom bokku ci waxuñu affaire dekki de wa ma nahnu bi mabuusin déet nun ñu bokk ci ñi nga xam dañuy dee ñu naan dañ leen di dekki amut dekki amut suratul muminuun aya 37 fa nataqu bi ma aw bi madhabi dahriyin ma hiya illa arham tadfa wal ardu tablu wal amru anfa wa laysa fi amru xaaliq qadir allahu akbar ñu waxe waxiinu ñi nga xam ne seen ngiir mooy jamono dundu àdduna kese amul leneen ñooñi nga xam ne dañ doon wax naan dundu bi daal du dara lu dul rek nii rek la tëddee ay mbir la yoo xam ne day dem suuf won leen waaw waaw suuf won na leen suuf si da leen di won buñ leen suulee suuf da leen di won kon dootu leen fi ñetti subhanallah amul ku sàkk amul ku moom yëf yi amul dekki amul amul beneen dundu dundu bi rek la ayuha almuslimun inna tafawuq almaddi walxadaari alladi aashatuhu aad saaxibahu suul axlaaqihim wa fasaadi diinihim wa taxalxulum fi lkufri wa dalaal taxalxul fi lkufri wa dalaal soppe yi xarit yi nitu bu fekke alal dala jiital civilisation boo xam ne ñoom dundoon nañ ko ci jamono jooja ànd ak jikko ju ñaaw ànd ak diine seen doxalin bu bon nuur sori ci këfër ak weddi yàlla ak cànkute résultat bii rek la mun a jox nit bew faale woo kenn yow rek ak ñi nga àndal ñeneen ci des yëpp doon ay baadoole Ah, benn group rek dangay dégg ay milliards ci réew mi benn groupe waaye du réew mépp lépp lu ñu xamoon démb ñu koy soxlawoo ci wàllu dund lépp yokk du ceeb du dawlin du meew léeg-léeg ñu ñëw bëlëf nit ñi ne la dañuy wàññi wàññi lan lan la ñuy wàññi xanaa seen làmmeñ wax ji waaye jëf moom amul ci benn bitik ci bitik yi nekk ci réew mi maa la lancé défi boobu réew moo xam ne amul contrôle économique amul contrôle ci wàllu bitik yi kenn ku ne nu la neexee noonu ngay jaayee parce que démb damaa yónnee jënd diwlin cinq litres ma joxe dix mille francs ñu delloo si ma deux mille wala deux mille cinq ñu ne ma litre diwlin léegi aw cinq litres bu ngi jar sept mille cinq cent ma ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun diwlin dix mille la jëm de <laughs> ngeen baal ma ah dix mille la jëm dix mille dix mille dix mille la ñaata suukar ñaata usine suukar ci biir réew mi mais mu mel ni réew yi amul usine sax ñoo gën a yombale suukar ñoo gën a yombale ceeb réew yu ñu wër yëpp ñoo ñu gën a yombale ceeb ñoo ñu gën a yombale diwlin lan moo xew lan moo xew ak milliards yu bari yi ngeen di dégg ci réew mi mais lan moo xew lu xew lu xew ceeb bu cher lu xew dund bu metti lu xew dund ak coupure yi tàmbali ci wàllu courant bi encore mu nekkaat beneen problème ci nawet bi nga xam ne mu lañ dégmal ak tàngoor bi mbokk yi lu xew lu xew ak milliards yi ngay dégg te doo ci teg bët doo ci gis dara ay centaine de milliards mais doo ci gis tous lu xew te ñenn rek yor ko oto yu bees kër yu rëy kër yu ngand kër yu rafet ay milliards ay milliards nga koy digg te doo ci gis mbokk jullit ñi lii mooy li xew lii mooy li am kon jikko ju ñaaw bu àndeek alal ju teew ci sa kanam nii rek lay mel doxalin bu ñaaw doxalin bu bon su ko defee ñi néew doole seen xol yi di gën di métti ndax dañuy dégg loo xam ne xalaatoon nañu war naa woyofal yëf yi waaye mu gën a ñëw indi ay jafe-jafe milliards li muy bari bëri bëri mais yi boo ci demee sa day jeex milliards yi ni muy bëri bëri bëri boo demee ci école yi sa xol day jeex ay milliards ngay wax gis nga tali nu mel ay milliards ngay wax mais ndox mu ne ndox mu baax mu jaar yoon bu ñu mën a naan sax mënuñ ko am te ay milliards ngay dégg loolu loolu gàcc la loolu gàcc la fu ne nit ñaa ngi yëngatu di grève loolu gàcc la ko wax ma tëj waaw mu ne nii dégg ngeen rapport bi ñu wax ci OFNAC IGE ak yeneen ak yeneen ak yeneen génn am na ñu épinglé waaye déedéet mbokk yi feek ñu ngi ànd fee ñu ngi bokk ci régime bi ah kenn du leen laal tey mais bés a ngi ñëw buñ leen laalul fii itam ci àllaaxira moom yàlla dina atte mbokk yi soppe yi xarit yi nitu aadiya dañoo niroog suñu réew dañoo niroog suñuy nit la doon dox fële dafa mel ni moo ñëwaat tey ay nit ñoo xam ne xamoon nga leen démb mais tey ñu di lay jaay loo xam ne daanaka demul fenn ci seen wax yi ci seen dox yi ci seen lépp ci yéen a bokkoon démb doon ànd doon football ci terrain yi ci ASC yi ñoom bokkoon waaye bés ni ki tey fi soppeeku na ba allez du ma seen moroma ah, allez dem <laughs> ma sam damay faral di wax ma ne du ma moroom du lu ñuy wax dañ koy jëf du ma sa moroom duñ lu ñuy wax mais dañ koy jëf nuñ koy jëfee mooy ñoo bokk nekk ci daara ji ma jekk laa mokkal alquran kooku bu nee du sa du ma sa ma dégg effectivement du sa kon du ma sa du lu ñuy wax mais dañ koy jëf te mooy nangoo jàng yaru jub tegu ci yoon ndax loolu la yàlla kon du ma sa ci wax kese loolu tuuti na mbokk jullit ñi nii la waa aad meloon lii moo nekkoon seen i melokaan lii moo nekkoon seen i pas-pas keneen ku leen nuru itam ci doxalin doo jubook sa waa réew lu ne di ko def mu niru lu baax te fekk du doon lu baax au passage ñu ngi saluer suñu jàmbaar boobu Idrissa Gana Gueye yal na yàlla sàmm ko yal na ko yàlla aar won na jeunesse bi yëpp nu ab jeune war mel te mooy siiwal mbon moom duñ ko jaare ci man même bu fekkente ne ñi ma àndal ñëpp nangu nañoo siiwal mbon nangu nañoo bon mais man du man sama diine nangu ko sama ngor nangu ko sama waa réew ñu may bàyyi xel ñoom it ñoom ñëpp nanguwuñ ko xale boobu yal na ko yàlla sàmm yal na yàlla aar ko yal na yàlla sàmmaale ay moromam te mooy du lawal mukk mbirum góor jigéen loo xam na yàlla da cee tukkaloon adduna yëkkati réew ma ba mu jub asamaan mu dëpp ko sotti seen kaw safara sotti seen kaw ay xeer ma ne kuy def loola ci jamono ji ak di ko jéem a lawal du ko jaare ci man jërëjëf Idrissa Gana Gueye yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla aar ko aaraale seeni moroom yi mel ni moom kon jeunesse Sénégal jeunesse su adduna bi jeunesse africain am ngeen idole am ngeen royukaay am ngeen koo xam ne bu ngeen ko tegee seen bët rek daal di génn daal di fël waaw mbokk yi xanaa adduna lañ nekk waaye forcé nga nga doon nangam forcé rek nga bon. forcé nga doon góor jigéen forcé nga jàppale góor jigéen loolu fan la am ci adduna bi ana démocratie ana liberté yal nañu yàlla baal yal nañu yàlla yërëm yal nañu yàlla sàmmal suñu réew sàmmal suñu kilifa mais sàmmal ñu suñuy njaboot mbokk yi soppe yi yëg si nañu fi nga xam ne foofu la ñu war a teg seen baaraam ñu dem dikkaat ndax signalé nañ ma léegi ne waxtu bi jeex na te mënuñ cee tegaat leneen kon maa ngi leen di ñaan ngeen teg seen baaraam foofu ñu ñëwaat tegwaat baaraam yi ñu àndaat bellu soob borom bi subhanahu wa taala kaddu gi barab yi jibee yal na yàlla sàmm ko te aar sàmmaale ñi fi nekk te di fii liggéey liggéey bu rafet bi liggéey bu njëkk bi nga xam ne ñi ko yor te di ko def ci ay technicien ay caméraman ay ay monteur ñoom ñëpp yal na yàlla sàmmal leen boppam yal na yàlla aaral leen boppam yàlla may leen gudd fan bu ànd ak teraanga yàlla defal leen ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Thank you.